asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu képp ku nekk ci saal bi di nuyu kilifa yi nga xam ne jugante nañ ci bërëb yi fasantikoo di nuyu suñu yaay yi nga xam ne tam nekk nañ ci saal bi nuyoo la boo xam ne dafay ànd ak ngërmande ngërmande bi nag munta weesu lenn lu dul jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass ci dënn bu ko yëg jërëjëfe Baye Niass ci jëmm bu ko yëg jërëjëfe Baye Niass ci ruuxu bu xàmmee lan mooy baayam jërëjëfe Baye Niass ci ruuxu bu delluwaatam ci mëdëdam jërëjëfe Baye Niass ci ki ñu xamal dëgg-dëgg lan mooy alxuraan tamit mbootam mëdëdam leeram nekk na ci saal bi mu nekk koo xamante ne si dëgg-dëgg ku kenn xamul lu mu doon la ndax li tubaab naan mercure du laal suuf te du tam ci kaw asamaan dëgg dëgg loolu dëgg la loo xamul kenn xamul xamoo fan la jóge xamoo baayam tamit mooy kan munoo ko wax ni buur la ndax sut na loolu munoo ko wax président sut na loolu dëgg-dëgg doomam kenn xamul lu doon di wax ni tamit xëy na dañoo toll ci jamono bu jaxasoo te Mawlana Cheikh Ibrahim ñas moom rek moom moo ñu dimbali ba lemal ñu yoon ngir ñu mën a xàmmee ay sirru sirru sirru yu bari amul sikk ne séeréer nekk na fii wala tukulóor wala yeneen ak yeneen mais baay moo boole baay mooy jëmm boo xam ne buñ koy wax ci xaalamu naasóot taar la bu kenn mënta xam lu mu doon bu dee nag ci leneen la yàgg na fee nekk ñun sëriñ bi xëy na bu fekkee ci une minute rek bi ma ñëwee ci seen dëkk bi yàggut waaye maa ngi seede ni maa ngi wakkirlu sama borom ni ku wéet laa ku wéet laa ndax daaw heure bii sëriñ bi ñu ñu ñu ngi nekkoon Medina Baye ci xaal bu neex xaal bu daq États-Unis xaal bu gën a neex ay milliards mooy xaalu tànku neen xaal mu doon taw bi ñu fa nekkee dafa doon taw muy taw taw bu métti suñu yére yi tilim xaalaat boobu amul lu ko dàq te nag am nañ ci yàlla dimbali ñenn ci saal bi bi ñuy tarbiyee jaar nañ foofu mooy dëgg-dëgg xaalu Majnun ak Layla diggante ku dafa ki mu bëgg rek xaal boobu moom moo neex waaye xaal bi xëy na lii la yàlla dugal sëriñ bi rek ñu ñu fekkee fii ñu nekk fii euh, sangu ba set mais wéet daal moom moo ñu gane si wéet kese du amuñu benn envie sax pour aca jërëjëf baax na ngeen baal ma ci dog-dog bi loolu xëy na fàttalikuwaat la pour sama bopp ak samay moroom ndax kilifa kenn du ko fàttali ñoom ñooñu mag mais may fàttaliwaat sama sama moroom yi nga xam ne tollool naa ñoom jamono ak lu liggéey bi metti metti dëkk bi dafa gaaw a këf bakkan ci li ma seetlu mooy ay time is money la wax ak ku ñu taxaw làkk la anglais barki Baay Ñas bu ñu fàtte salaatul faatiha torox asfala saafi li ne boobaa def ñuy ñeel yàlla bu ñu yëkkatiku yàlla bu ñu jege suñu bakkan yi yàlla bu ñu am bëgg-bëgg man la man la nii laa toll nii laa dayoo mënoo wax man la ci kanamu Baay Ñas munta ne amut ku mën a wax man la ci kanamu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mënta ne bala koo xam rek waxtaan yàgg Zakir yëkkati seetlul fu Zakir yëkkati bu matin cinq minutes xaal am lu tax moom waxtaanut benn langage rek la yor muy laa ilaha illallah bi liir bi amoon ci diggante ndeyam ak euh, ci diggante ndeyam ak doomam muy seen baq euh, barzaq boobu ëpp na ñu tudd ko fii mais loolu moom mooy delloowaat ba ñuy am envie tam di wax jërëjëf Baye Niass beneen yoon mbokk yi ngeen baal ma ma war mun guddal waaye guddal naa. xëy na sama ñàkk mat la sama matadi ak sama ñàkk yar waaye dama buggoon rek ñun ñëpp ñu waxandoo jërëjëfe Baye Niass waaye tamit ñu wax jërëjëfe Seydi Aboubacar na ko ñëpp wax jërëjëf Seydi Aboubacar Niass jërëjëfe Seydi Aboubacar Niass Baye ñun liñ la xàmmee muy Baye Mbaye MC jërëjëf yàlla na yàlla guddal sa fan salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfe Baye Demba Seydi sama sëriñ. bismillah. Non, c'est bon.